moom moo tànnoon maam jaara faam ndax naw gu mu ko naw mhm. ndax fonk gu mu ko fonk mhm. waaye ndax tamit taxawaayam ci Sénégal yaay booy ñu ngi lay nuyu di la masaw di la jàll li ñu bokk sa doom sa xarit Aliou maa ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax mhm. ngi euh, toog foofu ci plateau bi yëpp meloo meloo ñu lay fay yaay booy. di bu baax. ah di maam Mbaye. ndax ñoom laa déggagum Alima man. Mm-hmm. John Ndiassane laa fanaan bëriwul sax lu may nekk ci jàng ba guddi mais. comme démb nekk kenn ci man. Mm-hmm. te man bëgg Cheikh bu Diop dem il fallait ma déglu ko tuuti. Mm-hmm. ma xaw a guddee maa ngi sama kër trois heures du matin mais comme eh, journal bi. il faut ma déglu ko. may ñëw rek daal di yokk rajo bi. Mhm. dama koy fay sax mais dama ko yokk. Mhm. daf yee heure boobu normal parce que dafa am yee. Mhm. pour ma déglu journal. ma jóg xaar ma déglu ko mais ma ko woon. maa ngi sànni si kaw lal bi ma xaar ma jël ko. chargé ko ubbi rek gis kenn ku def benn émoticône maa ngi naan xoolal lii. ñii nii la ñuy defati fii fajar gi heure boobu de maa ngi naan xoolal nii la ñuy defati jëlati nañ photo moom ba taf ci. li moom nit ñi war nañ ci sama xel loolu lay jàpp quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais alxuraan ji continuer mais ma cliqué ci lien bi ndaw si dafa wax. Mm-hmm. dafa wax ne jaale bugaan gi moom itamit ma ne ah ça c'est du sérieux. ma yokk rajo bi gën a dégg alxuraan yi journal mu ngi waaj a jot. ma kon am na lu xew. waaye li xew doy na war lool. doy na war lool lool lool. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. oustaz Mohamed Mbaye xam na ni kullu nafsin zaa'iqatul mawti waaye kullu man layaa faani mhm. nit ku baax xale bu yaru dem na la xale bu am cër dem na mhm. xale boo xamante ni buy wax ak yow doo sentir ni mooy patron des médias dëgg la xale boo xam ne buy wax ak yow doo doomu coon fekk dem na mhm. xale boo xam ni buy wax ak yow doo xam ne mook l'artiste interplanétaire Wally Seck ñoo bokk ndey ak baay muy magam dem na wallaahi xale bu doxewul dara cëram xale bu waxewul dara cëri àddina yu ko yàlla may mhm. moom mi bu la nee tegamam jaaxal rek nga sentir amour d'un enfant envers sa mi mhm. nitu cër la yàlla moo ko baaxal moomi yow xam nga ni. Mhm. man bi nga may jox bébé de l'année daaw. Mhm. a ne la non non non Alima ngir yàlla yonent bi deux jours ci des ma dem nga dama tasa kii sa sa sa département la de. Mhm. ma ne man la mukk ci àdduna du am. mais ruseel gu ko rus ak soppeel gu ma ko sopp ak bëgg gu moo tax bi mu ma oowee ni ma Tamaam Diarra maa la choisir Tamaam Diarra sax muy yow tam bu def loolu yow demal ak noo demee baax na surtout sa département la te yow man maa la choisir sa ndax li ngay représenté ci bi ak ni ma la bëggee ma la fonkee li ay qualité yu bari yoo xamante ni man xam naa ne amuma ko mais moom Seck am na ko moom am na qualité femme yooyu mu doon lim ci yaayam ju xeebu ji mhm. moom am na ko mhm. maa ngi jaali bugaan ngay dani ma doom jooju nga xamante ne Eh, man yàlla moo ma def rek même ni ma maaseel ci Sénégal sax dañ may wax sama yaay. parce que loolu yàlla moo ko def. yàllaa la ko cër du ma leen magalu bari mais cër la. yàllaa la ko cër bugaan fu mu ma gis daf ma naan yaa jaboote nit ñu dëng nag loola neex mooy ba nga taxaw rek te taxaw. ndax xam naa ne fu ñuy jàppee yaa fay jiitu. na ko bugaan bii baat la dëkkal sama nopp. Mm-hmm. muy ku ma fonk di ku ma nawloo. ma mm-hmm. xam ne ñàkk na un support. Mm-hmm. keroog bi may jaale ji. son Ballago Seck mhm. ci Ouest Foire mhm. bi ma egsee maa ngi leen fekk ñoom ñaar moom moom ñu nuróole ay basin yu weex mhm. mais bi ma ñëwee bugaan laa fekk mu toog ma ñëw toog dama egsee rek bugaan ni demal wooyu moom mi ne ko bàjjenam mam jaara ñëw na yàlla seede na ko maa koy fekk ko mu egsi ñëw daal di ma ma woo ñëw nga toog ma waa si ñu digaale yow la ñu war a jaal papa loolu cër la yàlla moo koy def moom i ballaago yàlla bu ko cat ci bàmmeelam allahumma amiin mooy bàllaago deewam gi ku mu naqariwul yàlla moom mu la raw wallaay dëgg la yàq na journée yàq na journée bari wallaahi xale bu am cër ci yàlla dem na mhm. di jaale yaayam jaaga bu mhm. baax ndax moom it xaritam la woon dëgg la mais xarit waali la woon bu baax bu ma xam bu wér ñëpp xam na loolu dëgg la ñu koy jaale moom it waali fekk di jaale Sénégal yëpp di jaale itam auditeur ak auditrice des médias yëpp. Mhm. ndax tey ki nga xam ne moo jiite woon lépp te kenn mësu ko gis kenn mënu ko gis. Mhm. moo wàññeeku ci ñoom. képp gis naa léegi Pa Assane Seck mu tudd ay xéewal ci plateau. ak ñu bari ñëpp ngi def témoignage mhm. fu nekk. dal na yàlla wàcce yërmande ci kawam. xaar ko aljana ci guddi yi nga xam ni nag. famille boobu moom yonent bi rek lañ bëgg moom famille boobu xam nga moom moom ku bëgg yonent bi la donc dem na ci guddi yi nga xamante ne oustaz Mouhamed mën na ci def xisa mm. mooy guddi yi nga xam ne moo mujj ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu màggal démb li ñuy wax ngénteem li mm. tey bët set yàlla def loolu ci moom i mhm. yàlla na ko barke bi topp bi jaay nabil karim barke Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sëriñ maa ngi leen di jaare yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jërë allah kon ci kanam rek incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf ñëpp ñëpp mhm. nii la nii